moo tax Touba keroog ba ñuy ñëw da xam ne ñii yàq ma leen tax a jóg ah. ay ay ay ay ay ay ay yàqkat yu mag lañ dara li ci nekk ko def hmm. Hmm. dañuy wan leer nañ ñu xam ñu xam ne ñii dañoo jug ngir gàllankoor hmm. suñu mbàkk lii mu leeral dara gënu koo leer daara ji lépp nekk ci turu daara ji di alali suñu Touba nga xam ne kenn doonu ci dara wuti naag foo xamante nii ñoom lañ lu ci bari. ca lañ yor ci ay tur nit la ne. Mm-hmm. nekkul ci tur Sëñ Tuubaa. dëgg la Daaru Xudoos dafa am avenir bu rëy rëy. lu Sëñ wax. leeral ko fii muy ay pàkk yu am lépp ñu war koo tabax jox ko sëñ Tuubaa loolu liggéey Daaru Xudoos la bu leen ci fekk ci fekk leen ci bu leen ci baa muy dem bay leen ci mm. waaye dañoo am liggéey bu rëy bu ñuy xaar lii mm. sëñ Mbàkke wax ambition la mm. ambition la te sëñ kenn defaluñ ko kenn ku dul sëñ Tuubaa sa liggéey bi sëñ Tuubaa gërëm la bërki dem maa ngi koy maa sa koy wax ñoom seer na seer nañ ma Ahmadou Muxtaar jàngal ko bu ci ajjuma ba noppi fan yooyu ñuy doog a ñu door a ubbi daaray daaray daaray Louga man mii maa ne ko Mbàkke de ñu si ndax dañu dañ doon fan yi dañ doon ubbi daara ci daara ci Louga mm, mm. sëñ bi ne fan ak fan ngeen am daara ñu limal ko mu jekk-jekk daal di teg ba ci yàgg mu ne kees nag ñu ne teg mu ne da ngeen am fépp da ngeen am fépp te sëñ Ahmadu sëñ Ahmad mooy sëñ Muntaxa ñoom ñëpp benn nañu kon nañu gën a dalal xel yi gën a gën a laxasaayu engagé liggéey bi bañ a bañ a xool ay lim wala lenn loolu lépp ba ñuy door a jug daal ak saraxe daal boobu yàgg nañ ko wax mosuñoo soxla mbooloo ci kon lii lépp dafa dab dañoo dox ba dab ni kon sëñ Tuubaa ci boppam gàttal nañu gàttal nañu bu yàgg waaye bu ñu nangu kenn kenn di di affaibli daara ji wala ngay nangu ñu affaibli jëwri wala ñu jaar jëwri jaxase man mii jël nañ ma yóbbu ba sëñ Muntaxa pour sëñ bi ñaan ma hmm. da koy lépp ay pexe la jël ma ne dama dañ dañ may jël yóbbu ci beneen kuréel boo xamante nii gisuma ci daanaka genn wàllu gaa yëpp ñu ñu waxoon gisuma leen ñu jël affaire quinze quinze teg ko fële def affaire def ay gestes yoo xamante nii am na ñoo xamante ni ña nga ci daara mooy ni Omar loo wax bëgguñu bennoo ko bennoo ko ci boppam xaw ma da leen a arrangé bu xaw waaye li sëñ Tuubaa bëgg moom ñoom néewuñ ci ndax di jël ay nit di woo ay gone kenn ku ne ñu copte la di la xëcc loolu jëfin bu ñaaw la du àndum nawle jëfin bu ñaaw la li ñu war a mooy ñu ne woon kuréel 15 15 yi. kuréel boobu moo waroon a ubbi njàngum koor bi. Hmm. kuréel boobu man toog naa yuusu nag ñëw ba sama kër ma ne ko yow yaa war a uuf ñëpp loolu laa ko wax yow yaa war a uuf ñëpp ngir lépp lépp dox yow yaa war a uuf ñëpp ñëw na ba sama kër wax wax ko loolu hmm. ba ma demee bureau am tam delluwaat nañ fa keroog ñooñ bàyyi moor ñu am hmm. ak Souleymane loolu loolu loolu lañ ko feddali waaye da ngay xam ne am na ñu ne ci diggante bi ñoo xam ne doxin yu arrangé wu leen ndax Daaru Xuddoos question yi ñuy laaj. Hmm. dafay dafay nekk ay question yu pertinente Souleymane leer na ma ko dafa am gone yi dañuy laaj ay question yu pertinente yoo xamante ni loolu dafa leen di gêné. Hmm. dafa di daara ji dundee daara ji quatre-vingt-treize famille nekk benn barab daara ji yor seen charge quatre-vingt-treize famille laa wax de daara ji yor seen yor seen charge loolu loolu xam nga ni jaaduwul hmm. loolu kenn xamul ba charge boobu fan fan la ko daara jëme mais loolu lépp manque d' organisation la ak ñàkk ñàkk ak ak ak ak erreur organisation la mais Darou Khoudoss amul loolu amul loolu amul fenn. Hmm. sëñ Mbàkke bi bu wàccee day dem këram bi dañuy liggéey lépp sëñ Tuubaa la ñu dañuy liggéey di liggéey di ñàkk di ñàkk di jàpp andi suñu addiya mu leer naññ. duñ soxlaal kenn dërëm te loolu ñu bëri dañ koy man nekk Touba xam naa ci dara su na ñoo xamante saa su ñu présenté la kilifa da moom day da jànkasi da waaye day liggéey de day liggéey liggéey kilifa yi dañ ci bëgg lool dañ ci sant loolu te daara ji loolu am solo gone gi ci gis Dakar ñii ñi nga ñii licence ñii ñi nga deuxième année seen diplôme nangam ñii ngi liggéey loolu mooy loolu mooy liggéey bi waaye ambition bi dara ko du sax ak ak lii taxaw liy nekk ci loxoom mu yor ko loolu loolu lang rek lay lang la mën a doon lang lang rek lay mën a doon waaye kenn waruñoo gàllankoor mm-hmm. waruñoo dañu war a am fulla mm-hmm. murit day am fulla mm-hmm. lii buñ doogoon sëñ bi nii lañ koy wax dañu lang rek an bi lang la sëñ bi ne waxtaan leen ko bokkul xam na ko xam na ko. sëñ bi gën a xam. làng lay mën a doon il faut nii lay mën a doon. waaye ñuy def ay dañuy def ay système yoo xamante ni après da nga da il faut da il faut que poser ay question hmm. di jékki-jékki di jël di woote téléphone jël di fexe ba copte la nañ fexe ba copte copte gars yi mel ne mel ne agresseur buñ agressé. <laughs> gars yi loolu laa non xam nañ ne gars yi affaire agression la. di yàq xel gone yi ak ak ak di di yàq yëpp yàq pas-pas. ay pexe daal la bëri. ay pexe yoo xam ne taxaw tam di bëgg a tas kuréel bi nag loolu mooy li gën a garaaw. Hmm. man commencement sax comprendre woon waaye bi ma dee ba ci biir daa comprendre lépp nga xam ne gars yi li ñu bëgg mooy tas kuréel bi. Daaru Xudoos daf leen a gêné. Hmm. jàng mi xaw ma lu mu leen gêné loolu mooy lan. te loolu loolu aabu la woon te loolu kilifa gu mag toog naa ak ak ak ak ak ak sofóoram te wóor na ma ni si kilifa gu mag a ci xam nga lépp mu ne man la daar ji dafa nekkoon moo ko jugewu ah. Youssou ak aatu benn lañu ah. aatu mosuñoo digéré hmm. aatu mosuñoo digéré Youssou day day négocier yii mais di digéré wu ba muy wax yëpp naan ay mataat yenn jiite politique mataat man yooyu yëpp musuma ñor yooyu ñor ñun loolu dañ ko dépassé ñu ko jàngal sëñ Saliou ba sëñ Saliou ubbi ñu barabu sëñ Tuubaa ni dem nañ jàng loolu dara mun na koo gën a tawe uh-huh. tey buy jàngal sëñ Mountakha yi fu ñu toog dañuy jàpp ne dañuy ñu ngi toog ci wetu sëñ Mountakha di ko jàngal uh-huh. wóor na sëñ Tuubaa pastas boobu lañuy la ñuy doxe kon bi am solo mooy nañ gën a takk gën a laxasaayu gën a fonk liggéey gën a taxaw jëwriñ gën leen a gën leen a fonk nit day gore nit day gore nit day gore te kóllëre dañ lu ñuy laaj gën la suñu amoon loolu wax na ko nit day nit day gore mais taxaw daara gi taxaw ba daara kii rek nga commencé yor beneen jikko xamul yan façon nit dem naan da ngay di di ak ay kuréel yi loolu as gor du ko def loolu am na ñoo xamante ni dañoo rax hmm. ñu ngi suñu biir waaye dañoo rax ñoom ñëpp dañoo def erreur. waaw waaye li ñu waroon def la tënk ko nay kuréel de Touba sax aussi seen tur dañ ko wane. bañ bëggee bañ bëggee bañ bëggee gàllankoor ñenn ñi. Hmm. dañoo taxaw ne bu ñu bu ñu bu ñu leen gàllankooree kenn du kenn du jàng. Hmm. ñun ñëpp kenn du jàng. ñun ñëpp. ñu ñu bàyyi leen dañuy la mujj bàyyi. Hmm. dañuy la mujj bàyyi waaye ay mag yu yàq ñoo fa bari ay mag yoo xam ne dañuy yàq. mag yu bari yoo xam ne dañoo war a defar waaye dañuy yàq. rawatina ñi nga xam ne dañoo duggoon suñu biir ba ngeen dàqee daara ja bañ ñëwee dañ leen a dimbali dañ leen a dimbali yaatal leen bañ ñëwee dañ leen dimbali yaatal leen jox leen ay leen ay responsabilité bañ demee tuuti fi mu toll ni ñoom ñëpp dañ leen di utiliser di leen dóor ci kaw daara ji ñu ñëw daara Touba nekk jekk-jekk ñëwandoo fa def manière ak façon yoo xam ni uh-huh. nga xam ni yàq rek moo leen tax a jóg loolu jëfin yu ñaaw ñaaw la yoo xam ni am na loo xam ne sax sañu ko tudd te def nañ def nañ dem nañ ba ba ba yóbbu ay ay ay huissier de justice nan dañuy dem ay wut ay pour pour pour ñu ñëw ñuy intervenir ci affaire daara ji xool jëfin yooyu lu ko gën a ñaaw loolu aatoo ñu ko defal yàlla ko yàlla yërëm waaye moo ñu ko defal yoolu ñu jox ñu ay huissier de justice yóbbu ñu cong ba suñ saal yu dugg ci. huissier ñëwaat na ren. waaw li bëgg a ñëwaat ñoom ñoom ñi nga xam ne ci Daaru Xuddoos lañ nekk lañ nekkoon ñoo ñoo def loolu jëf yu ñaaw yooyu. loolu maam yëpp dañ ko war a xam kon ah. yi nañ gën a laxasaay ñu gën a am fulla te gën a gën a gën a gën a gën a gën a fonk liggéey bi liggéey bu sëñ gërëm la ah. liggéey bi sëñ tubaa gërëm la liggéey bu sëñ tubaa gërëm la ah. qualité de membre amul amul qualité membre yi sëñ tubaa def daara ko amul daara ja ca daara ja daara ja dara umbundi fa daara ja lañ ñëwoon fa lañ màggee ba ba toll li ñuy toll waaye qualité de membre yi sëñ tubaa def fii daara ko amul fa barke Seexul Xadim mm-hmm. kon nañ góorgóorlu xam ne li sëñ li sëñ Muntaxa bëgg ñun loolu nañ nañ nañ ci teggal suñu bakkan rek waaw nañ ci gas suñu bakkan waaye lépp nii da nga lay doon làng làng lay doon doon dem ci mo ñuy construire mooy li mu bëgg a wax mooy dañuy dañ ko construire ndax ndax fu ne am na am na am nga